Tá muito suñu réew duñ ko dénk mukk ñoo xam ni guddi ak muito seen programme muito toj mooy taal mooy indi muito mooy indi muito jéego ba ay nit ci muito seen bakkan mooy di wax lu dul dëgg mooy di féewale ay nit mooy di wax lu ñaaw. wala ko ci këru diine yi ma ni ñooñu.

le Sénégal est en chantier partout y a un programme ak ay projet yu président Macky Sall inauguré vois ci wàllu tali mais boo les région de Dakar les autoponts les autoponts ils ont defar rek li mu réglé la circulation ken ne sans compter le terre le terre, nga xam nit ñi et très bientôt le BRT mani président Macky Sall mi ngi dans les régions la même chose président Macky Sall mi ngi liggéey li def ci université yi université bu bi Amadou à terme trente étudiants nga dem la santé xol leen hôpitaux yu yi mu inauguré bu yagul li ñu def tay muy comité ak fanwer ak ñatt di adhérents le président Macky Sall est majoritaire dans cette commune C'est la réalité Nous comprenons. comprendre nañu xam nañu Nous xam nañu ñun vraiment on ne pouvait pas imaginer li que nous ne nous fi ci commune nous mais c'est pas trop tard parce que échéance B, c'est une échéance majeure 2024 nous réitérons nous n'y sommes pas. Nous ko tous les ko notre engagement aux côtés du président Macky Sall suñu engagement le c'est un engagement sans faille parce que njariñu askan wi la moo la jeunesse kontaan nañu ci ñuy gisee comité yu bare ay Jeune yor ko ça c'est très important jeunesse bi yor ay comité c'est important bu leen kenn nax bu leen kenn këf wala këf seen mani avenir du Sénégal ginnaaw yàlla mu ngi ci loxo président Macky Sall te dañuy continuer ak moom en 2024